Mm, d'accord alors dañoo toll ci jamono joo xamante ne euh, tout le monde parle de rupture ñëpp doyal ci li nga xamante ne moo nekkoon le président Macky Sall là c'est pas Macky Sall mais quand même ki nga xamante ne moom mooy euh, amadu Ba Macky Sall moo ko tabb pour mu euh, remplacer ko ci coalition Benno Bokk Yaakaar alors tey jii nii lan moo wutale Amadou Ba ak Macky Sall avec Amadou Ba est-ce que gëm nga ni que rupture bi nga xamante ne askan bi ñu ngi koy exiger je demande je dirais même pas demander mais ñu ngi koy exiger mën nañ ko am euh, ak euh, ki nga xamante ne mooy Amadou Ba. ah l'homme que je connais te mu teey ma xam koo am jaar-jaara moom xam naa ne ñu ko falee dina bett ñu bëri parce que am na loo xam ne tey euh, Macky c'est sa personne nu mu gérer dëkk bi am na comme li nga wax rupture yi ñu di ko waxtaan ñun en tant que coalition en tant que en tant que coalition il a mhm. des exigences qu'on a quand même parce que kenn mënul naataable tey dëkk bi sur les questions judiciaires et de justice munoo ci bañ def réforme. parce que tey am na lu ñu dund loo xam ne depuis quatre ans cinq ans loo xam ne jaar nañ fi président de la république loolu bu ci amul rupture ñun waxtaan léegi moom loolu c'est pas possible. quatre ans cinq ans ça a commencé jaar na fi Khalifa Sall jaar na fi c'est-à-dire la question judiciaire a toujours mm-hmm. à poser problème au Sénégal. et ces réformes là sont des réformes très profondes yoo xam ne. nekk ak beneen président il faut ñu teg ko ci table bi parce que ça a constitué quand même yemul man ak yow ñu tooñante wala Cissé wala keneen. justice dafa am un un impact économique sur le fonctionnement de notre pays. tey si ces instances judiciaires là ne sont pas assez autonomes ne sont pas assez libres y compris aussi le parlement parce que les formes les réformes yooyu dañ ko discuter ak moom la réforme administrative la réforme judiciaire la fait la la l'indépendance du parlement ce sont des questions essentielles yoo xam ne tey dafa toucher sénégalais yi parce que gis nañu tey ba ñu ñu waaj dem élection la executive bi jéem a teg doole euh, parlement bi pour def yenn yoo xam ne bu nekkul woon conseil constitutionnel la fa taxaw heure bi du ñu dem du ñu dem élection le 24. le 24 mm-hmm. mars donc y a beaucoup de questions yoo xam ne ñun nee nañ ko en tant que candidat yooyu même si tu es issu d'un rang parce que ñëpp xam nañ naka laa sonalee fii Macky Sall pendant pendant son 12 ans de magistère yu bëri surtout sur les questions immatérielles. Mm-hmm. on on n'était pas d'accord. et man lii moom c'est du yoo xam ne. Euh, yenn emprisonnement yi abis yi yenn yi mënu munatul continuer Sénégal donc yooyu dafa nekk loo xam ne gëm naa ko même bu nekkee ak Amadou Ba ou un autre c' est des questions au lendemain de du 24 mars c' est des questions yoo xam ne war nañ ci def ay consensus. et vous je pense euh, bu ñu fàtte ne Amadou Ba moo fi porté la réforme du code général des impôts qui était très difficile. c' est quelqu'un qui aime réformer et trois réformes man bañ ci waxtaan waxtaan na ko la réforme de l' administration. c'est au cœur de ces de ces objectifs la réforme de l'éducation parce que nee na tey boo xoolee année ANSD la couche tey nu ñun jeunesse bi moo ëpp. pourquoi tey ñuy gis ne jeunes yi ñoo gën a ñoo gën a tànk pourquoi ils s'énervent pourquoi parce que li ñu bëgg ci liggéey li ñu bëgg ci koom-koom li ñu bëgg ci seen dignité pour ñu mën a exister dañ koo gis wul mu doy donc moo tax bu mu xoolee affaire ANSD bi il a dit te boo koy dégg je veux être le président. de l'emploi des jeunes. Parce que l'emploi des jeunes aujourd'hui constitue le cœur de la difficulté des politiques publiques. tey aujourd'hui il faut ñu jooyanti ko. expérience am nag may na ko jànn PS en tant que ba muy commencé carrière am ba mu egg maturité mu war a mën a tey réew. Macky Sall forcément am na fu mu yem ci dayoo. moom war na mën a moom tamit commencer un nouvel un nouveau chapitre moo tax muy parler il parle de prospérité partagée. Mmh. il parle plus yoonu yokkute wala plan Sénégal émergent Mais cette prospérité-là, il faut que les jeunes, que les femmes, que les autres puissent se sentir inclusivement dans, le, dans, dans les politiques publiques. loolu moo moo am léegi ci Sénégal loo xam ne tax na tension yu bëri amoon et économiquement la il faut que ñu ñu jox ah,